asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéenay safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkk bu baax ngeen abone aimé partagé commentaire like ndax kat loolu dina nekk li nga xam ni lu ñu daal di jàppale la tey jii mu nekk bis bi nga xam ni bis bu alaa dawma la waaye tamit bisu nakar la ci li nga xam ni bisu mbégte la ndax kat ñaare lu waral li ñu mel ki nga xam ni moo di alin Alioune Badara ndaw mun nañ ne bis ni tey jii la génnoon àdduna mu nekk li nga xam méttit la woon loolu ci njabootam méttit la woon loolu ci umma islamique waaye tamit méttit la woon loolu ci képp koo xam ni yaa ngi xeex ngir kat Sénégal daal ñëwaat ci lu baax waaye tamit mbëgte la ndax kat bis ni tey la Seexul Xadim mi nga xam ni moom moom foofa ca Ndar bureau ba ca Ndar ki nga xam ni moo di tubaab bi bëggoon kaa signaloo waaye kat waaye pour mu weddi suñu borom te loolee fa la taxay woon bind li nga xam ni moo di xul huwa allahu ahad tey jii ñu bëgg leen indi ab jàngat bu baax jëmee ca ñoom te loolee dañuy taxaw déglu vidéo bi nga xam ni imam Alioune Badara ndaw defar na ko daal di ñëwaat am na ñu kilifa goo xam ne dafa wan gannaaw boromam bokkul ci diina tabbat yadaa abii lahabin dañ koy jàng fii ci minbar xayril maxduubi alayhim wala daalliin fii lañ koy jàngee ci minbar bis bu set ñu jàng ko ci minbar kon di wax ne taxaw ci minbar di wax kàddu yoo xam ne dafay jën ci ñi nga xam ne ñoo jiite ak yàq la dama ne loolu ñàkk a jàng sa diina la kooku booy wax ci système bi waxuloo ak buur ndax sax ñun amatuñ buur far waxuloo ak président système ngay waxal système bi man la yow la fii lañ war a fàttalee jaami yàlla yi ne leen système bii ngeen di dund fii lañ ko war a fàttalee doonul système bi yàlla gërëm président dafa ñëw fekk fi système bi dafay demaat bàyyi fi système bi erreur bu rëy la taxaw bëgg a dox diggante waxkat yi na xam ne taxaw ci kaw manaabir yi ne mbirum siyaasa moom bu ci kenn wax ci kaw minbar mbirum nizaam bu ci kenn wax ci kaw minbar waaw wax ca nag ànd naag coono ñu ne lu tax ñu ne ndax ña ko jiite ay kalifa lañ dañ leen a war a nangamat nangam déedéet lii du mbirum kalifa moom imaam Alioune Badara Ndao nekk ab jàmbaar nekk koo xam ni Sénégal waruñu ko fàtte benn yoon mun nañ ne loole sax moo tax ñu daal leen defal li nga xam ni moo di hommage jëmale ko ci ñaari góor yu tedd yi di suñuy maam moom imam Alioune Badara ndaw mu ngi gane àdduna ajjuma le 6 mai 1960 fi nga xam ni moo di ndalal Malick foofee ca Kaolack waaye tamit ci gox bi nga xam ni moo di ngaa Gandiaye mun nañ ne moom imam Alioune Badara Ndao jàngee fi nga xam ni moo di daara sëriñ imaam Ahmed Sakhir loo muy daaree kokki waaye ci ginnaaw loolu moom imam Alioune Badara Ndaw jàng na tamit ci sëriñ bi ñu wax sëriñ moor Mbay Cissé ci foofee ca njaareem moom imam Alioune Badara Ndaw waaye tamit jàng na fi nga xam ni moo di kër Bakary njaaree jàng na fi nga xam ne tamit moo di njaareem moom tamit ilam imam Alioune Badara Ndaw jàng na fi nga xam ne moo di makka Guy te loolu lépp ngir rek du leen ñu xam ni kii dafa war a doon ëllëg dara ay waajuram teel kaa faggal teg teel yoon ngir kat xam ni diine mooy li wóor mooy li baax waaye ci loolu tamit jàngal ko tamit fi nga xam ni moom imaam ali Badara Ndao jàngee na fi nga xam ni moo di daara maam Abdoulaye ñas ci loole sax daan ngeen dégg kii di Ahmed kalifa Niass daan addu jëmee ca moom waaye nag moom mii nga xam ni moo di imaam Alioune Badara Ndao après ci ginnaaw jee loolu mën nañ ne daal di admis woon benn concours bi nga xam ni ñii di ligue islamique mondiale ñoo daal di ko organiser woon loolu sax mu nekk ak première génnam ci la ci Sénégal dem foofee ngir kat gën a wóyal ab jàngam ci loolee mu nekk ak imaam Alioune Badara Ndao foofu la commencé di gën a wéyëb ak jàngam ngir kat mu ëllëg mu mën a doon dara ndax olof dafay wax ni ëllëg boo bëggee doon dara wala nga bëgg doon sëriñ faa nga nangoo doon ab taalibeem ci loolu sax ay waajuram teel a xam loolu ngir kat moom dina xam ni kii ci daara la juddoo war a nekk ëllëg kiy jàng ndax kat doomi mbër jàngil mbëri yàgg-yàgg des na musa ñam ci loolu moo tax ay waajuram teel kaa génnee mu jàng loolu ba tey concours daal di ñëw mu génn Sénégal ci ak li nga xam ni moom mi la imam concours bu bu xam ni concours bu am solo waaye nag ci loolu mu nekk ki nga xam ni ab sëriñu daara la woon ku xamoon système waaye tamit ku nekkoon ki nga xam ni ku amoon fasaaxa la saa su nekk imam Alioune Badara Ndao fu mu waxee ñëpp daal di koy def lu am solo ci mën nañ ne diir bu gàtt fexe na la tout te mu commencé génn leen ci média ci télé yi ñu gën nga xamee sax ci Walf Fadjri ak yu ni mel ci mi nga xam ni moo di min bari mi taxaw ci di di xutba ak lu ni mel daan def jàngat bu am solo ci loolee sax moom imam Alioune Badara Ndao mën nañ ci lu bëri ci lañ ko tegee gët waaye tamit ci jafe-jafe yi mu commencé am foofu la ko amee ndax kat ci lañ ko commencé koy jiñ terroriste ak li ni mel ba sax yóbbu ko ci prison yeeg yi ni mel ba mu jële fa ak feebar wala ak coono loolu yëpp sax moom imam Alioune Badara Ndao mu daal di bàyyi ndax kat a na xamal xeex ak bakkan nekk na li nga xam ni yombul benn yoon moom imam Alioune Badara Ndao mu teel a xamal jeunesse Sénégal teel a xamal ñi nga xam ne ñoo di la ñu waaye intellectuel moom imam bi jaare ci daara waaye mën nañ ne jàngal na ñi nga xam ne ñoo togoon sa baaw école ya moom imam Alioune Badara Ndao ci giir bu gàtt wane boppam bu baax a baax ba ñëpp daal koy bàyyi xel waaye tamit mën nañ ne imam Alioune Badara ndaw ca loolee sax tax na tey jii mun nañ ne nekk de ki nga xam ne duñ ko fàtte mukk moo tax Buzz Actu 221 daal koy delloo ak baax a baax di ko ñaanal yàlla moom imam Alioune Badara Ndao mu ngi génn àdduna fi nga xam ne moo di atum 2022 fii ci mim réew du Sénégal loolee sax tax na imam Alioune Badara ndaw kenn dootu ko fàtte ci un an bii gis ngeen tey jii la mën nañ ne fi mim réew du Sénégal taw bi nu mu fi mel bu baax a baax ci moom ak ki nga xam tey jii moo di seexul xadim moom sëriñ Touba daal di bàyyi woon lépp xoolu dara daal di tuddee boppam ana xadimal mustapha man mayi mbindaanu yonent bi loole tax na nit ki boo wutoo ku nga wutu mën nañ ne pour nga pour nga wutu ko dina metti loolu ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi mbindéef waaye gis nañ bu baax li nga xam ni dundoon na ko ci ay coono donte kat lépp lu mu am lépp lu am mën nañ ne ci darajaam lañ ko amalee waaye sax moom xadi xadimul xadim mi sëñ Tuuba commencé daal di commencé bu baax a baax te topp tànk yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir kat bëgg a doon mindaanam muy xadimul Moustapha boobu tey jii la mën nañ ne li mu am mokk am ci jamono jooju la nekk fi nga xam ne moo di ndar ci tubaab yi moomoon bu baax Sénégal gi la waaye kat ci loolee mën na nekk ki nga xam ni xoo tubaab yi commencé kaa xokkatal ak di ko bëgg a jaay doole xam ne kat li ngay woote war a ko woote benn yoon ca loolee moom Seexul Xadim mu të gën a bàyyi ndax kat xam ne ni kenn rek moo jara ragal kenn rek moo jara bàyyiloo sa xel kenn rek moo jara doyloo muy yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ba tax na sax moom Seexul Xadim moom mi nga xam ni tey jile tey jii mi nga xam ne barki Demba Ndiaye lañ daan célébré lii di màggal Touba Mbobile ci yow loolu sax moom Seexul Xadim tey jii bureau ba ca mën nañ ne ñaari rakkaam yooyu la tey moo waral tey bis bi tey jile mu nekk bis bi nga xam ni dafa nekk nekk bis bu alaa daw me ci islam waaye ci communauté murit waaye tamit képp ku lu bëgg lu baax ndax kat ginnaaw bi nga xamee ni ñii tubaab bi bëgg ko signalé foofu dafa jël moom ak xelam bind xam ni xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun tey jii mën nañ ne ci loolee siggil na islam siggil lépp loo xam ni ku bëgg lu baax nga waaye siggil bu baax baax diine ji ndax kat lépp loo xam ne tey jii moom Seexul Xadim ginnaaw ba mu jugee di xeex xeexalul ngir tarixa xeexalul ngir kenn dafa xeex ngir diine islam waaye dafa xeex ngir ngir Sénégal moom nekk ay mag yi nga xam ne saa su ne dafay war a baax bu baax baax ñu leen di fàttali suñu miim réew di Sénégal fàttali kat Sénégal pays la Teranga bu ñu daan wootee boobu ba léegi mun nañ ne tey jii la Sénégal gën a nekk pays de la Teranga kon nag bu ñu mukk benn mbindeef wala leen diñ ko yàqal ci loolee te mun nañ ne Sénégal gile lu mu am ba am foofee lañ ko daal di amee kon nag ñaar ñi suñu ñaari maam yi nekk ñaari maam yi nga xam ni Sénégal dootu leen fàtte mukk mukk ndax lu nekk defal nañ ko Sénégal daj nañ lu nekk ba tey jii mun nañ ne ñàkk nañ jariñ nañ bu baax a baax ndax kay tey jii ku dem daara foofu di daara imam Alioune Badara ndaw xool ni ay imam Alioune Badara Ndao yu bëree bëri bëri ñu ngi fa donte moom jóge na fa waaye tey jii ku dem foofee ca Touba xam ni ay seexul xadim yu bëri bëri bëri ñu ngi fi doote ñoom jóge na fa waaye nag mën nañ ne jógewuñu fi ñoom ñi benn yoon di sàkk bu baax a baax ngeen abonné partagé suñu vidéo bi mu gën a yaatu ba ndax kat ñu xam ni Sénégal gi la fàttewuñu benn yoon ndax kat dafa bokk ci bu baax a baax nit ki bu génnee àdduna ñett yi mi dafa bokk ni wala bokk ci doom ji nga xam ni doom ji baax bu koy ñaanal la kon nag ñu ngi sàkk bu baax a baax ñun ñu bokk ci sët yi nga xam ne dañuy ñaanal suñu maam yile te ñoom seen yàlla tas ñu seen barke asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu